nguur gi euh, mu am euh, bopp PDS bi yëpp quitté ñu bari ñu quitté man ci bopp yi laa bopp oh, non li des ci bopp yi bariwul kay waaw kan ñu bari quitté mhm. euh, est-ce que jaaduwul ñu jox chance à ces jeunes là yi nga xam ne ils ont cru au projet te ba ñuy gëm projet bi pouvoir xëccu leen les lambris dorés du palais xëccu leen est-ce que ñooñu waruñu leen jox seen seen seen chance créer la compétition pour redynamiser le parti mun Maïmouna Kocc Barma dafa ne mag jar naa ba cib dëkk mag jar naa ba ci dëkk ko ca ko wax de te waxantuwul ñeenti jubbam yooyu ku ne xam na ne nous sommes appelés à partir parce que 74 à nos jours lu ne daj nañ ko lu ne gis nañ ko ci lu metti donc am na foo xam ne boo fa tolloo dootoo mën a dem doo fa mën a dootoo mën a dem donc on est d'accord pour les renouvellements xam nga li garaaw mag génnal ma fu coow amee foofu la amee waaye ku ne xam na ne mag day dem te li ñu jëmbat pendant 27 ans bëgguñu mu yàqu bëgg nañ suñ doom xale yu jigéen yi ak suñ xale yu góor yi toog remplacer ñu remplacer le président Wade. mais renouvellement est-ce que non est-ce que est-ce que jógal ma toog la dama ne nga ne ci lañ gëj a renouveler. waaw waaye ci 96 boobu gël nañ ci fal nañ ci président en 2000. gagné nañ ci ay municipalités. am nañ ci majorité à l'Assemblée nationale ci ñàkk renouvellement boobu am nañ ci ay sénateurs am nañ ci ay députés am nañ ci ay conseil économique et social am nañ ci ay DG am nañ ci am nañ ci am nañ ci ci ñàkk renouvellement boobu loolu yëpp xew na fi. donc il fallait il fallait laisser. waxuma ñu bàyyi ko. Hmm. kenn xalaatul loolu waxuma ne xale yi bu ñu ñëw it dañoo war a ñëw mais ñu def ko ci yar ak teggin ak déggoo un grand parti comme le PDS. mënuñu wax ne dañ fi nekk am na ñu fi nekk loolu nekkatuñ fi suñu secrétaire général président Abdoulaye Wade yàlla na gudd fan te wér moom bàyyiwul de bu bàyyi woon ba tey suux nañu mu ngi ciy jàpp sa jëkkër jooju mu ngi ciy jàpp dafa am gëm-gëm waaye dama ne à deux mois des élections présidentielles waruñu woon a laal renouvellement buñ defee élection ba yàlla may nu ndam nag waaw kañ. donc dañoo waroon processus bi ñu commencé en 2020 euh, jàpp nga ne. à dañ ko waroon stand by. dama lay laaj Sénégal gi ban parti ba ci parti Macky Sall mii kan nga fi dégg laal base am. Macky Sall nee na waxu renouvellement boobu gëmu ko. lu tax gëmu Macky daf ko war a gëm ndax renouvellement mooy tax xale yi nekk ci suuf dem. non mais jàpp na ne l'APR est fort. aha waay. ak Amadou Ba mi. waaw baax na ba Karim ñëw. <laughs> Euh, euh, quest nan la renouvellement yi tëddee ba nga jàpp ne waruñu ko woon def mbir mi baaxul. xam nga ku mer dem am na ñoo xam ne buñ meree dem am na ñoo xam ne buñ meree buñ merul duñ fi jóg parce que seen deret la man kenn mënumaa génn PDS parce que c'est c'est mon enfant maa ko ëmb maa ko wasin sama doom la sama alal la même su ma toogoon mënatuma dara buñ tuddee PDS ma fettesu parce que dama cee def sama ñaq def ci sama doole def ci sama temps ak ñeneen ak ñeneen ñu mel ne man am na ñoo xam ne fi lañ nekkoon nekkatuñ fi dem nañu seen njaboot a ngi fi donc waxuma bu kenn renouveler d'accord naa waaye dafa am moment buñ ko war a mën a def ak buñ ko war a mën a def kenn du jub ay élay séance présidentielle di laal base loolu laa wax. le problème c'est que processus prend fin vendredi ils ils vont renouveler les instances du bureau national des jeunes. Mm -hmm. dimanche dinañu renouveler euh, commencé ngeen déposer seen candidature. candidature déposer nga sa maa dinañu renouveler les instances des femmes. déposer nga sa candidature maa njëkk a renou maa njëkk a euh, actuellement yow yaa nekk la présidente. Euh, du mouvement euh, des, des, des, des femmes, des, femmes du, du, du PDS, mm national. le processus jeex na est-ce que béy wéyul mbuus. waaw waaw béy wéy na mbuus waaye nañ ñaan yàlla rek yàlla apaiser les situations parce que ab lay wàdd nit ñi dañ ko bëgg a delloo njukkal ci doomam ji nag dañuy ñaan yàlla yàlla apaiser les situations kenn ku nekk xam ne ab Ablaye wàdd jar na lu ne waaw nañ ñaan yàlla loolu ñun ñëpp ñu liggéey dans la solidarité man gis nga bi ma yor poste bi ma yor. muy secretaire général national adjoint chargé des femmes lay Wade moo ma ko nommé par décret bi ma koy nommé yëguma ko dañ ma ne xoolal ma xool gis ko ma di ko ci gërëm nag confiance bi mu amoon ci man ba def ko man ko ci gërëm bu baax a baax a baax a baax jéem naa it nag li ma man présidente bu nekk ci nguur am budget nuroowul ak présidente bu am bu nekk opposition waaye maa ngi gërëm toutes les femmes may mën a 8 mars li xew fii les 46 départements du Sénégal de Kédougou à Saraya kenn desul ñëpp a ñëw ñëwuñ pour sama jëmm man danoo ñëw pour jëmmal président Ablaye Wade ak Karim Wade doomam permanence bi ci bunt bi fees ci biir fees saal yi macha allah ba ci sous-sol bi mel na lu ma la mënta wax kon dama leen ciy gërëm bu baax ndax nit mën naa luye ay chaise waaye luye ay doomu aadama nag yombul ma di ko ci gërëm li ma ci métti woon nag ci fonction bi passé parce que Ablaye Wade daf ma nommé par décret comme ni may nommé secrétariat national waaye aw ma woon possibilité pour yaatal c'est-à-dire normalement présidente war naa am possibilité dans les 46 départements léegi mu ngi ci 59 fenn fu nekk ñu am fa 5 femmes yoo xam ne ñooy servir de relais à la fédération nationale des femmes te loolu bokk na ci li ñu bëgg ndax suñu waaxoo jëm. benn dëkk bu ñu amee cinq femmes yoo xam ne ñoom ñu représenté au niveau national ñoom ñooy teeru nit ñi ñoo ñuy dalal ndax gan nag gan rek la mën a doon donc loolu awma woon possibilité bi passé pour def ko ndax dañ ma nommé comme tout le monde waxuñ ma ne yokkal waxuñ ma ne wàññil justement si vous êtes reconduite euh, dimanche mm -hmm. à la tête euh, de la structure nationale des femmes mm-hmm. Euh, xëy na di nga mën a am les coups de franche di nga mën a am plus de pouvoir plus de possibilités. loolu laa wax pour jëmmal. loolu euh, jëmmal loolu nga xam ne moom nga moom nga wut. moom ngay wut waaw. pour jëmmal la fédération nationale des femmes où toutes les femmes des départements des fédération seront représenté maanaam ñëpp duñ ci mën a bokk mais fédération bu ne nag danañ fa jël 5 à 6 femmes ñu bokk ci bureau national nga xam ne elles seront noo relais ci bu ñuy dem ci ñoom. bee passé nag vraiment j'avais pas la possibilité j'étais nommé par décret présidentiel di ko doxal. mais le problème renouvellement yi au niveau de Guédiawaye. Mmh. vous avez été évincé. vous avez été. évincé. c'est-à-dire. est-ce que vous êtes sorti majoritaire. c'est-à-dire euh, y a deux camps parce que bi ñu indee di jaay ay cartes on n'était pas impliqué. il y a les présidents des sections le président de la fédération bokkuñu ci njaayum carte bi mais nag jël nañuy carte man damaa jël 30 secteurs damaa jaay 30 secteurs versé 30 secteurs validé ko le 14 mars 2023 bi ma ko validé ba pare donc je suis légitime dafa am deux façon de vendre maa ngi dem aux élections incha allah yal na yàlla def li gën. ci ñëpp ndax nit a ngi xëcc loo xam ne gënul ci moom mais ci kaw rek man waalo laa dëkk du ma dellu gannaaw waaye su fekkonte ne dama koo teg ci yoon ci ni mu demee damay bañ walla ma retiré wu waaye su ma retiré woo dañ naan daa ragal su ma retiré woo dañ naan daa xam ne du gañe teg gi gañe ëllëg kenn xam ko yàllaa ko xam ba ñuy def seen bureau fédéral ma yëguma tinuma c'est après nag les cinq sections yi nga xam ne structure légale du parti démocratique sénégalais la dont les présidents ñu ngi fi depuis ba kenn xamul ñoom nag femmes yooyu ñoo dajaloo fal ma présidente départementale de waaye parce que maa nekkoon seen présidente départementale. xam nga pour organiser une élection légale dañoo war a dajale nit ñi ñëpp jëlandoo carte kenn ku nekk dem jaay sunu jaayee ba pare ñooña tase. fal ña leen neex que ça soit au niveau des jeunes des femmes des anciens structure légale bu mënta doon ñu fal mais loolu nag amul nag sincèrement parler loolu nag mais mais mais bañ leen ne dañuy renouveler j'ai l'impression que yéen gëmu leen woon processus bi moo tax euh, sonu leen ci xoolal loolu alibi la rek mënoo nekk PDS di jaay ay carte di renouveler ba ñu lay wax loolu juddu ci sa kanam ñu ne la kaay jaay carte carte Ablaye Wade ngi kaay renouveler nga bañ ko renouveler loolu ay wax la. mais pourquoi impliqué woo ci processus bi. mais buñ la waxul nooy de y a une tendance pour dire vrai. tendance waaw dafa am ñu jëm nii ñi jëm nii. ñi nekk nag au centre et au milieu ñoom ñoo waroon jàppale bi yemale ñëpp ñëpp jëlandoo jaayandoo renouveler ndoo te maa nga lay wax leen de. Guédiawaye ba mu tëggum dana man maa ci am six conseils municipaux man beneen commune amu ko maam ñetti jigéen. ñetti góor géejuwaay ba mu tëggum dënd bii passé bi ñu defee chute du pouvoir man maa ci am huit conseils municipaux ñeenti góor ñeenti jigéen ñuy wax ñëpp ak secteur yu doy yi nga xam ne la yàlla xam doy na ñëpp man maa ci am loolu dans tout le département de Guédiawaye mais mais mais mais xam nga boo amee représentativité électorale vous êtes une réalité euh, libérale dans le département de de ñu annoncé des opérations de vente des cartes nga nekk présidente des femmes ndax waroo woon impliqué say nit ngeen monter seeni secteur monter seen section li ma la wax dem en compétition au niveau départemental carte kenn du ko jaayee noonu carte commissaire bi day dikk commune yépp toog ñu soxla carte yépp toog ñu jox leen commissaire bi dem bu nu jaayee ba pare commissaire bi di ku bëri nga valider say secteur nga verser sa ko sa xaalis ñu valider la say secteur ça ne s'est pas passé comme ça man nag man jaay naa trente secteurs valider naa ko nag man ñeneen ñi jaay nañu seeni secteur mais le temps bi ñu war a valider ñu di leen def nii def nii ba délai bi jeex. mujj ñu valider mujj ñu valider mais seeni secteur ngi tege délai bi moo épuisé maanaam ñu ne la 15 kaay ngay def nii def nii ba délai bi passé. waaye jaay nañ seen i carte nag te ba tey tey ji lañ gën a doon PDS comme man. waaye léegi yow jaay nga say jaay nga monté nga 30 secteurs. Mhm. validé nañu ko. Mhm. Euh, donc amuloo problème euh, pour pour pour pour pour compétir au niveau départemental. non aw ma problème boobu xanaa gisoo image soo ko image yeeg jigéen ñi xale yu góor yi naan bu nelawee sax naan ko naa nga ma yee amoo problème boobu ñi am problème boobu it nii ma la waxee noonu la demee. mais on me dit que aujourd'hui bu ñu rendre euh, bu ñu joxee résultat yi bu commissaire yi defee seen compte rendu euh, mun a da ngay perte poste euh, présidente départementale des femmes. xam nga man suma ma suma su pertul man yàlla laa àndal ak fidélité nag ak sincérité nag ak ci sincérité fidélité ak loyauté ci PDS ci Ablaye Wade kenn du ko tudd. kuy wax séeréer ma dégg wala ngay wax wolof ma dégg wala ngay wax français ma dégg du ma la baax du ma nangu kenn yóbbu leen kër yaa ma di tax ca maccante ba te nag lu sotti am borom d'accord naa lu sotti am borom waaye du ma bouger nag meetar xam nga mën nañoo nangu lépp ci man waaye sama loyauté sama sentiment envers le président Wade kenn mënu ci dara feeg maa ngi dund muy dund kenn mënu ci tus. feeg doomam yaa ngi dund may dund kenn mënu ci tus mais là de compétition électorale interne. <laughs> euh, après la vente après les opérations de renouvellement mhm. boo génnul majoritaire le parti est obligé mu tabb keneen à votre place xanaa dégguloo li ma la wax waaw vente des cartes man soixante 74 maa ngi fii ci PDS xam naa nuñ koy jaayee depuis 74 xam naa nan la ñuy renouveler fédération nationale des femmes xam naa nan la ñuy renouveler fédération nationale des jeunes xam naa nan la ñuy renouveler fédération des anciens kenn du ko jàngal mais teguwul ci yoon vente des cartes commissaire bu day ñëw ñu créer comité local de vente des cartes de chaque section ñu paree def comité local de vente des cartes au niveau départemental commissaire bi bu ñëwee ak ay kartam ñépp ay dikk toog ku ne jël li nga soxla bu ñu paree bu ñu jaayee yow soo jaayee baygal nga woo ko mu ñëw valider la suñu valider sec euh, secteur yépp ba mu yegg nag ñu dem ci section yi élire bureau bi donc dem département dem au niveau régional dem au niveau national man au niveau national régional maa nekkoon chargé de l'information et de la presse du régional des femmes de nekk chargé de mission sous le sous l'égide de Koumba Ba fa Koumba Ba kon man parti bi kenn du ma ci jàngal dara xam naa nu muy demee léegi nag lu sotti dafa changement dafa am xaj la donc procédure boobu nga décrire procédure boobu la ñu teg li may wax ni ci Guédiawaye je ne suis pas la seule partout dans le Sénégal coow laa ngi ci mu ngi tolloog nag ne Ablaye Wade moom ñun suñu sëriñ la ay taalibe lañu sëriñ ak taalibe nag da ngay nangu. waaw mais balaa ngay nangu da ngay nangu ci luy yoon euh, procédure bi nga décrire léegi. est-ce que c'est différent de la procédure bi ñu utiliser non pour renouveler les instances euh, au niveau communal et départemental diamétralement opposé qu'est-ce qu'ils ont fait déggoo li wax naa la ko wax naa la procédure bi ñu war a def bi ñu war a def mais ñoom lan la ñuy def à la place de cette procédure xanaa déggoo li ma la wax jël carte yi jox ko ku la neex pour bu ëllëgee nga mën koo jàpp pour nga mu mën a falu looloo am fii looloo am fii looloo fi am yow tam mën nga concevoir Guédiawaye Woré Sarr ak sama ñubbal gu rëy gii ak sama xuloo bu réy bi ci réew mii ca assemblée fu ne nga xam ne damaa risqué sama vie ndax Abdoulaye Wade ak doomam mën nga concevoir géejawaay ñu def fa nit di ko di ma jiitu man xanaa nag bu chance amee cim réew xanaa nag mérite am na mag la mag la ana xale judd avant indépendance wala après indépendance romb juróom fukki at romb jub juróom benn fukki at romb juróom benn fukki at ak ñaar ana gu ne xam nga lu fi ne la vieillesse c'est pas l'âge les l'esprit et les ambitions mais nag ajaratu ware bu bu euh, danga tegoon tànk géejewaay booba ak léegi mais bu amee euh, beneen femme boo xam ne monté na ngeen dem renouvellement mu ëpp la lu mu jaay yow ah, ban fa waaw xanaa ka ngay monteel mu ëpp ma lu ma jaay dañuy compétir waa xanaa c'est normal tamit dama ne dañuy compétir xanaa officialiser dama ne xanaa dañuy compétir kii ëpp loo jaay kañ dangay toog nga jaay 20 ma jaay 10 mbaa nga jaay 40 ma jaay 5 ma nangu parce que politique noonu la ñiy compétir kan dañuy toog wax mbaa ñu toog bokk mbaa ñu def leneen waaw te itam nag xanaa xanaa kon Ablaye Wade kon ñu jëlee ko fi nag moom mi nuy topp Ablaye Wade la nuy topp de fas yéenee xeex ak xeexal doomam ji ba yàlla jox ko réew mi nag ndax ngor la de ku baax ku gore ku am reconnaissance président. mais bu ñu waxee dañuy renouveler même boo d'accordul ci procédure bi mais demal nga wane sa doole. damaa demul dañ maa ba may dem. yow mais yow da nga soxla ñu woo la. yow boo ma woo boo ma woo loon fii dinaa fi ñëw. mais yow da nga soxla ñu woo la dama ndax boo ma woo loon. non yow fii xam xam nga fii du sa parti. c'est-à-dire dama la ci mais parti boo xam ne yow yaa ko moom. dama la ciy jox exemple. waaw dama ne man. kenn du dem ci invité dañ ne boo demee ci ndaw ji buñ la invité boo fa tëjee kaas. doo mais peut-être soxla woo ku la invité. ah noonu politique. waaw. noonu politique géej waay demal jaaj nan nga mën a bàyyee ay nit ñu ñëw organiser fa. loo xam ne vous êtes exclu du système ba résultat yi génn ñu nar laa évincé. waa dama lay laaj nag man à mon âge. waaw. rampé depuis 74 ànd ak Ablaye Wade yaa ko wax ñu bëri daw ma toog ne paanu mbalit te bañu ma ci dara dégg lu ne dékk lu ne ngir yàlla ak yonent bi bakkanam man damay dem di xeex. am na loo xam ne dañ kon doon organiser xale yi dem fa dañ leen dañ dañ a dañ doon xeex bu polis jàpp leen yóbbu ne leen du ngeen dugg ñu ne dañuy dugg man danaa am samay doom ñu judd ci parti bi yaru ci parti bi màgg ci parti bi ñuy organiser loolu ba ñuy ba may sonn xaw ma leen man may dem di ñàkk fayda man di dem di xeex man dinaa def loolu su ma la tàggoon ne maa ngi dem di xeex politiquement di ma ba man li ma doon xeex xeexal naa ko lay Wade li ma doon tëdd kaso tëddal naa ko Ablaye Wade ba ma ko tëddatul kaso xeexalatuma ko sama làmmiñ bii ne taalaalay pétrole àddina bi yëpp xam nañ ma fidèle loyal sincère à son excellence le président Ablaye Wade fa Wade fils kenn du leen tudd kenn du leen tudd xalaatuma ko dee moo ma ko gënal kenn du leen yóbbu kër yàmba di tax dama cante ba xanaa nag bu chance amee boo ñëwee 2007 ñu def la jox lay responsabilité xanaa ñi fi nekkoon nag waaye tabax bii dafa am fondement nag maa fii tabax boo fi gis dafa am fondement tabax boo fi gis dafa am fondement ñun ndawuñ ci dara lépp fi la ñu fekk te it lépp fi la ñuy fekkaat bu yóbbu nu puus ñu ba ca bitti waaye kenn man man de xaw ma kenn sama sentiment ci Ablaye Wade doomu aadama mënu ko dindi. xanaa yàlla dama doon laaj ma ne mais mais mais qu'est-ce qui s'est euh, bi ñu waxee ay renouvellement gëmul woon affaire bi. su ma ko gëmul dinaa jaay carte waxuma ne ni jaay naa 37 heures fay sa sama cent 150 millions sama reçu loolu sax yow dama intellectuel intellectuel nga validé nga commissaire ñaari commissaire ma validé ak superviseur bi te sama kër ma tëgg samay sabar. parce que fa ma ko waroon a defee ca gunaas ga ma fekk baax doon fa maire 12 ans di fa def lu baax ba léegi nii ñu di ma ñu ñu ñu see yéene ma jàmm dafa am juróom ñoo xam ne maa ñoo ma dëkk ñu deele te jàpp naa date bi te damaa waroon a voyager le lendemain te dat limite bi c'était le 15 le 15 boobu laa waroon a dem Abuja damaa jaay damaa versé damaa validé man aw su ma gëmuloon loolu dinaa jaay carte loolu ay waxi tappale la gëmul ne dañuy yaakaar pour lan ba nu ba léegi ñuy jaay carte di renouveler ñuy jaay carte de. non dañ ne gëmoo ko woon au début et après nga rattrapé wu euh, et puis c'était trop tard ñeneen ñi ñoo la ëpp lu ñu lu ñu jaay. xam nga kaay ma wax la man damaa yorul kële boo xam ne ba may def parrainage damaa yor kële boo xam ne ca laay sukkandiku pour jaay samay secteur parenage bi wane na lépp man rek j'ai parrainé 1200 parrain man rek. 300 personnes la pare ci sama kër avant may dem jël avion dem ñu fi des ñoo ko mot ba mu 1200 parrain parrainé yomb na Euh, jaay carte yomb na nu mu la neexee waaye pare ne moo am moo moo ci am solo man du ma dof duma ma jaayil dama sédd lay Wade cër barke Sëñ Fallou bëgguma lu ko naqari bëgguma lu naqari doomam lu ne yekk nañ ma ko fii samay doom man koo faj ma daggal ay saaga lu nekk ñu di ma ko wax wax ju ñaaw ju ne ñu di ma ko wax màggatum gënoo bu may màggatum gënoo man nii jekk toog rek sama njubal gii am na ñoo xam ne bëgg nañ ma jur leen te man bëgguma leen a jur lu ne yekk nañ ma gannaaw yàlla nag sama rakk ji maa ngi koy gërëm di ko ñaanal yàlla na ñëw ñëw bu sedd gañe gañe bu sedd ji réew mi Karim moo intervenir ma am jàmm. parce que xale dañ la campagnal. di ma saaga rek ci euh, réseau sociaux lu wax lu leen neex te ma jabu te ma am ay doom nag kenn xamu leen nag ci dëkk bii te fii la ñu juddoo euh, capital du Sénégal bi fi la juddoo kenn xamu leen liggéey ñëw ci kër gi tëdd.